tàggat yaram ak euh, Mamadou Ndiaye gentleman célibataire euh, dem Louga waxtaanee euh, club bi nga xamante ni <laughs> je te jure c'est son nouveau nom. yaay naanaa mant di moo taxit kay moom macha allah <laughs> donc naanaa mant ak gentleman célibataire ak biisu ceeb. ceeb bi kay ñun ñëpp a ko bokk. biisu ceeb. ceeb bi moom. bàyyi ba ci alfi mat baax ñëppay dànk. alfi fër ñëppay dànk waaw kay kuy tonton gar mi kuy tonton gar mi. ñëpp a maas nee ceeb bi ñun ñëpp ay dànk kat lañu. Doudou Ndiaye kon dañuy dem euh, dañuy dem donc Louga waxtaanee euh, championnat national bi nga xam ne ni euh, club bi nekk foofu Louga surtout ci wàllu basket dañoo bëgg ñu réfectionner leen seen seen seen stade bi. effectivement Pape Cheikh gannaaw ba ñu dañu nekkee ci playoff yi ñoom déjà dañu dañoo ñoom ñoo jëloon coupe du Sénégal daaw waa Louga basket club am nañ taxawaay bu am solo ci championnat bi waaye it ñoom li ñu gën a bëgg nee nañ mooy des na mooy li ñu gën a bëgg mooy ñu réfectionner leen seen stade boobu mën nañ seetaan élément bi ñu ci Thierno qualifié donc euh, demi-finale Coupe du Sénégal en attendant ñu xam quatrième équipe bi génn pour donc le tirage au sort pour l'instant aussi ñu ngi ci course playoff parce que jusqu'à présent ñoo jël quatrième qui est donc une place qualificative donc pour les playoffs donc ce qui veut dire que tey bi championnat bi yowoon nii on va donc jouer donc euh, les demi-finales des playoffs et du championnat il faut dire que euh, c'est une bonne performance parce que daaw naam ga woon nañu Coupe du Sénégal daaw mais aussi au niveau du championnat ak parce que daaw championnat bi mu desee pratiquement deux journées toogoon noonu mais ren fi ñu toll nii ñu ngi joŋante équipe yi gën a mag ca bu ñu yàlla defalee jàmm aussi mën nañ qualifier bu neex suñu borom donc euh, en demi-finale donc du championnat. qualifié pour l' instant am nañ demi-finale coupe du Sénégal donc championnat bi la ñuy nii fi toll nii daal. waaw bu jafe-jafe moom mënu cee ñàkk naam parce que bien vrai que maire bi Moustapha mooy président équipe bi jag jag jaay ko délégué ñu ngi def ay efforts yu énorme donc depuis l'année dernière mais il faut dire que aussi tamit euh, buñ gën a yokk motivation bi rek booy mën na sori parce que buñ xoolee sax booy temps yi leen gën a sonn sax mooy saa ce niveau là ñu ngi effort des efforts ñëpp xam nañ ko mais nañ ko dolliwaat encore parce que sportif mënul xaar yenn xaar yi bu xaaree day découragé moment boobu ñu ngi dem seen yoon donc c'est à ce niveau moi je dis que c'est à ce niveau rek la am ay rëq-rëq yu ndaw a ndaw mais je sais xëy na ça va s'arranger donc très vite. stade bu baax moom ah stade bi kay gis nga ko pourtant day am def nañ ci investissement. <laughs> mais nag quel investissement parce que lii boo ko xoolee xam ne vraiment kenn xamul lu muy nuru war naa mën a gën a baax lii vraiment nous lançons un appel bu nu mënee aider suñu terrain basket bi ñu defal ñu ko saal à l'avenir daan aider bu baax pour les performances bu mëntu a a baax derbi ba a baax. mu ngoog donc ñoom loolu la ñuy sàkku euh, pour ñu defaral leen euh, réflexion wu seen stade. Euh, voilà am nañ stade sax waa Louga mais nee ñoom li ñuy gën a explication bi ñu joxe mooy dafa sori dafa sori lool dëkk bi nga xamante ni foofu la ñuy amalee parce que tey xam na basket ñoom dañu bëgg benn salle bu nga xamante ni day jege population bi loolu tax ñuy demander suñuy réflexion wu seen stade boobu. Mhm. di wax ni rek Louga basket club am nañ taxawaay bu am solo ci championnat ñoom ñi nga xamante ni ñoo gagné woon euh, vainqueur daaw euh, coupe du Sénégal ñoom li ñu bëgg mooy ñu réfectionner seen stade bi waaye it euh, gën am taxawaay bu am solo ci championnat national bi voilà mu ngoog donc loolu mooy li nga xamante ne jëlee nañ ko Louga ci wàllu tàggat yaram ñu